laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñuy jaam bu dul yàlla muhammadu muhammad daal jaañu jëm yi waxum li mooy mbaxaneem bépp yoon yow ma xiyaam ak fii maalikul muluki buuru buur yi xaabiru ki ñëpp lépp ci kàntanam ayu fii dund te du dee mukk ayumu bi fi sax te du fi jóg mukk La ilahe illallah emuwol jaamu nen dul mum la ilaha illallah amul benn buur bu ñu jaamu bu dul yàlla la ilaha illallah amul benn buur bu ñu jaamu bu dul yàlla waliyullahi la ilaha illallah amul benn buur bu ñu jaamu rabbi yow suñu borom xaalibu xaaliku naa yow ki mu bind lillahi ñan na cant bu bëree bëri lillahi ñan na yàlla sarmadan cant bu continue di wéy amul fu mu lillahi ñan na yàlla rabbi bi nga xam ne maaliku moom moom jalla ba xaaku mooy buur bi nga xam ne bi moo koy lépp te moo fii def naskur ñu ngi sant lillahi ñeel yàlla wala ku mu ngi sant tamit muhammad saat bu saaji borom nga ko wut yow ma qiyaam borom ba xam ne ni imaami naa illa allah amul benn buur bu ñuy jaamu bu dul yàlla laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñuy jaamu te nag tuub laa ilaha illallah amul benn buur bu ñuy jaamu bu dul yàlla. alhamdulilah. cant ñeel na yàlla. yàlla mag na jalaaluhu ak magam waru bu baax la moom yàlla. mujibu mooy nangu ñaan yi. laa ilaha illallah amul benn buur bu ñuy jaamu bu dul yàlla. te yàlla nga bëgg a xéewal yow sunu borom. وسلم كما دول جام على محمد محمد رسول الهدى ينزل يمشي بالله إن جمنا كمال إماما من عبد الله دومي عبد الله بن من عمينته ابن عمينته أجي دوم عمينته رسول الهدى ينزل يمشي بالله إن جمنا كمال إماما ci moo mag taaju jëmi taaj bu taaj bi borom ba xam ne ni taaj bu xëy bi borom jaasi ci rasulul hudaa yéen sa njub bi billahi biñ naa jàlla ne kamalu ci moo mag abdullahi jaamu yàlla bi habibillahi sopp yàlla bi rasulul hudaa yéen bi ñu bi billahi biñ naa ne kamaalu yéen mat yaa fi yow suñu borom di jaan ni defal la bu ko ñu bëgg la yàlla mu defal nu moom lu bëgg bu muhammadun ñu a bëgg muhammad nga defal na ko ci nga ne xayra rasul moo gën ci yonent bi billahi rabbi muhammadu yow ci di borom muhammad xayra kullu li nga xam ne ci moo gën lépp rabbi sama yow borom asamaan wa rabbil ardi yow borom suuf xaaliru muhammadin yow ci bindu muhammad xayra kullu ki nga xam ne moo gën lépp di jaal yi yàlla mu def rabbi yow sunu borom am di ko ma mën laa jàmm wala xul ko ak mu mën laa jàmm ak yow borom na xam ne xayra xayra kullu yow yaa gën lépp ci na mu defal diinu taqwa diinu ju ànd ak ragal yàlla rahim ni yow kii yërëm ñi gëm xabuuru yow kii jëggale suñu banaan suñuy bakkaar rahim yow ku yaati yërmande yàlla mu defal diine joo xam ne day ànd ak ragal yàlla da nga jégal na suñu yow ki nga ne kii yaay jégal ñi dum ya am nii yàlla nag mu defal aljana ba ajjana bi isnika ci sa nameel yow yàlla bi jaar Muhammadin ci darajey Muhammad xayru baax ki nga xam ne kii moo gën bépp jàmm jaam yi yàlla mu defal dama yëgal umri gudd fan bi jaaji muhammadin ci darajey muhammad xayra ibaadu ki gën mboolem jaam yi bilaa dëkk bi mu ànd ak karama rabbu naasi yow borom nit ñi bi jaaji muhammadin yow ci ci daraja yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy na ci baax ci gën jaam yëpp wala ku baax bi yàlla mu defal wërsëg bu yaatu xalaalante nag mu dagan bu yaatu Muhammad yi ci daraja yi Muhammad xëy na ci baax yi ci gën mboolem jaam yi waxam ni yàlla na nootu dëgëm ni yàlla na nu jëggal bi jaax muhammadin yàlla na mu tëb bi jaax muhammadin ci darajay muhammad fa ki gën ci jaam yëpp wa amadana kullu yàlla mu defal suñu jëf jëf saa yi asan mu nekk jëf joo xam ne ju baax muhammadin ci darajay muhammad xayra ibaadi ki gën ci jaam yëpp yàlla mu defal wa mawtu rabtu dee boo xam ne day ànd ak noflaay ci pour ñu mëntaane ci place bu allahu ci place suuf allahu yow mi di yàlla rabbul ibaad yi yow borom jaam yi ñu ngi lay nga defal ma moom su rabbu kulli makaani ma am ci bépp place boo xam ne bii kaw nga defal ma ko dee boo xam ne bii deewu naf laay def allahumma salli yàlla yàlla nga dolli xéewal ala sayidi di sang bi li tey Mouhamad ngir Mouhamad moom mu béy Moustapha ki ñu tànn xëy na moo gën ñëpp Mouhamadu Mouhamad Mouhamad yàlla moo doon defee woon ala Mouhamad ci Mouhamad rasulullah ci di yonent yàlla bi li tey xayra ngir Mouhamad moo gën lépp lu yàlla yàlla moo doon defee woon ala Mouhamad ci Mouhamad rasulullah ci di yonent yàlla bi li tey xayra ngir Muhammad moo gën lépp lu yàlla